allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam léegi ñu fas yéene boole xaraf yi suñu première leçon tadrib numéro un da ra sa darasa da ra ja daraja ra za qa razaqa ra za ma razama ra da ma radama ra da fa radafa za raha zaraha zarada zarada wazana wazana wazara wazara warada warada wadaa wadaa léegi faaw ñu jël ci lu bari ndax xaraf yépp jàngoon nañ ko daraja razaqa razama radama radafa zaraa zarada wazana wazara warada wadaa léegi ñu yam foofu léegi soo leen seetloo gis nañ ñu commencé ni yëpp fataxa lañ muhammad wa